fees dell ak i rongoñ bay waaj tuur kàddu yi nga xam ne ni moom la mbokk détenu yu ñuy woowee détenu politique jibal di firndeel seeni naqar ba ñu jàppee sunuy doom ba fi ñu toog ñun amatuñu dund metti na ba fu metti yem ndax doom dafa sax ci xol janoo ak taskatu xabaar yi ñuy firndeel métit bi seeni i ñooñ di dund ci kaso yi man mi jaar rëbës xam naa gis nga rëbës bàmmeel la kaso bàmmeel la ku fa jaaru bu noo xam la fa nekk mais ñun ñi fa jaar soo xëyee ñu ne cours bi 9h la wala 15h da ngay kontaan pour 15h jot wala 9 jot pour nga génn. lu ñu bëttal bësu jongante falum jiitu réew mi doon lu tas seen i yaakaar. métti woon na xale yi di wax di ñu dalal bu bu bu amee incha allah dinañu génn boo demee ñoom ñoo lay defal keroog ba mu jëlee initiative jël li mu jël la ku ne xam na ko ñu ñu leen di tiire ay di leen gazé di leen tiire ay lacrymogène waaye fas yéene ñoo bànq seeni loxo benn yoon fii rek bàyyiwuñu seen i mbokk loolee tax ba ñu namm amal ab doxub ñaxtu. samedi incha allah ñu autorisé ñu ko ak ñu bañ ñu ko autorisé lan si yemale incha allah samedi yaay yi dinañ génn xamal ki sàll ne ko dafa doy na génnee suñuy doom ci prison yi. prison du ñaxtu yi nga xam ne ni moom moo jotoon a am biir Sénégal ci weeru mars ci atum 2021 ba tey tax ba yoon tegoon loxo ay ndaw yu bare bu ñu sukkandikoo ci seeni waajur yi lu toll ci junni ndaw ak juróomi téeméer ñooy xaar boobu ba léegi ci kaso yi te ba tey xamuñu fu ñuy mujj.